ginnaaw gold skin mooy ñëw am na escargot am na argan mais mbay est-ce que xam na bii am na lait am na savon. foor gi mu foor rek ba tax na dama ko laal benn yoon rek dikk bi di ma ngàmm kon du ma ko jege yaa ko jege yaa lay taxawee. kon mbay. dama weex du da ko laal benn yoon. Eh, dama ko laal benn yoon ah bi di ma ngàmm ci ngaw ne ba directeur sax daf ma bàyyi ci porte bi benn lettre. ah bon bi nga xam ne nag lépp bëri foor gi mu foor mbay benn yoon laa ko laa sama kanam waaw laa ilaha waxal ñu la koy ci très bien kon mbay bii nga xam ne moom mooy escargo am na le am na crème am na savon am na gel douche bi nga xam ne mooy argan am na le am na crème am na savon am na gel douche ñaari gamme yi 20 jours moins de un mois nga wex ah. kenn du gold skin moom mooy numéro un ci leeral man xool yoo xam nga ci dara ku ma laa ilaha ah? benn yoon laa ko bi ma ko nee timbi tàmba lettre de maa bàyyi sama kër. la li yëg <laughs> comme que day leer. xul xuloon kon day kon animé woo euh, da jaawle si diw. non non maa daaneel. Ah. FBI dafa maa daaneel si diw. kon mbay léegi leer na ne ko yow ko laaloon mu def la nii. jigéen day ñuul baaba xees su bëree bitim baab tàmba. jaaxle mbokk kon mbay mbay sori ma mbay sori ma ak madaar ak lera ak jetol ak madaar liquide bi. ñoom ñooy setal kër yi leera ko mbay. ñoom ñooy setal kër ba mu set ñooy ñi nga xam ni. dootul jox benn xale bu rafet macha waaw amatul kurébët jetol benn xale deret dootul tuuratul boo defee mu arrêté waaw ñëppay mbay mbay d'accord uma benn yoon ah. yow li la leeral mooy état de santé bi nga nekk li la leeral mooy récupération bi mais mbay am nga droit nag leer ñu mun a leeral mais buñ la jiiñ loo xam ne yow def la ko sa der bu dugg une semaine leer ni nañ ñu lay jiiñ ah, ay ñu la koy jiiñ ah, ñu la koy jiiñ te pour jigéen la waaw waaw ah kon boog nee lay taxawee. moo tax mbay nga sori ko. Eh. mais mbay. waaw ko du tee li ñuy wax qualité bi ci nekk. Uh-huh. noonu lay def jigéen. waaw waaye tamit noonu la mën ci gaaw leeral. gaaw day gaaw a leeral te yow lii taxul nga leer yow da nga yor sa leeru bopp. waaw kay damaa yor sama leeru bopp ba leeru France laa yor. ayca ñëw mbay mu rafetlu rek xam yow yow kaay yow mbay yaay jàmm. Eh, eh, xam na la xam nga kañ laay dund. <laughs> waaw dib dib dund gis moo na ma sàng nee na ma mbay da ngaa daw wala lu mu demee noonu parce que yow yaa ngi wax ak taximan mbay di mbay tey du ma yéegal kenn xam nga tey laay ah. xam nga góor bu ñu koy xas day seey ndax danga danga di nga seey war doo seey non déglu ma rek mbay tey laa xam ndax di nga seey mbay yaa ma bett mbay yaa ma rusloo mbay maag yow ba ba ba conseil constitutionnel mbay nga yokk yokk ma fit jox ma doole ñu dem ba taxaw yaxara dugg ña nga dugg karaa taxaw ci sécurité bi nga ànd ak karaa jaaral tàppet ñu woo ña woo yaxara nga leen ràpp ci biir kaso bi yow nga dégg sa sac daal daw kan dëggam sa garde corps moo daw kan moo daw karaa dafa daw barki sëy karaa daw karaa daw yaay daw yaay jaam yow doo gor yaa ma bett yow yow yaa ma bett yow yaay jaam yow doo gor yow foogoon naa ne sama nit nga mais yow doo sama nit mbay yaa ma bett amoo kóllëre amoo kóllëre mbay bett nga ma rusloo nga ma kaso yooya yoow boot ya ah karaane ma ne wéccëg waaye man de Buddy. القطب ذاك أبو الفيض الإلهي أبو العباس أبو العباس événement bu mag mbokk yi nag gërëm bu baax ki nekk ci réalisation Pape Samba Thiam moo fa toog fekk goog Fatima Evans nag madame Traoré nuyu nañ euh, ki nga xam ne nag moom mooy sëñ am nekk nag ci son bi ki nga xam ne mooy sëñ jili benn jëmm ñaari caméra moo yor li nga xam ne nag moom mooy euh, caméra yi ja lumière moo fi jaar ñu nuyu tamit Awa Diouf coordonnatrice diggante en office ak Kouthia Show Kara sécurité tonton Pierre ci dem ak dig bi ngi am mbégte contentement ci Lamine Baye di ko gërëm mbokk yi ñii nag tey moom dama di berndal nuyoo spécial mooy kilifa diine yi ginnaaw yàlla yonante bi démb ci jolof tolof fi ma nekkoon bu doon ñoom wax dëgg yàlla tey ñu may jàllale ci rëbës wala maa ngi feneen waaye maa ngi leen di giiñal ne euh, gëm naa ne réew mi am na ñoo xam ne seen baatin ci boppam mën na laa génn ci lëndëm dugal la ci leer moo tax tey laay gën a takku ci ñoom ndax démb ci xat-xat yi nga xam ne nekkoon naa ko euh, jàpp euh, ci ak gendarmerie national ñoom ñoo tax ici avec seen ñaan bañ ko yëgoo yëglu ci baatin yàlla génn na ma ci lëndëm gi nga xam ne ci laa nekkoon ba daal di dugg ci leer Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides ñu ngi koy ñaanal fan bu gën a guur gëram Serigne Mbaye Sy Mansour xalif général des Tidianes ñu ngi koy ñaanal Serigne Pape Malick Sy yor kaddu kër ga ngi koy ñaanal fan Serigne bu Medina Baye yàlla na yàlla guddal fanam Serigne Mame Abdoul euh, a guur gëram Cheikh Serigne Cheikh Ahmed Tidiane euh, xalifa Niass ca lewoon a Niassène ziar nañ ko Serigne Cheikh Bekaay Kunta xalif bu Ndiassane Serigne Cheikh euh, Tidiane sekk xalif bu Thiénaba Thierno Bachir Tall xalif bu euh, Omar Yen ak Thierno Cheikh Omar ñu ngi koy nuyu Serigne Mouniru Jigéen xalif euh, général bu Serigne Amadou Baro Jigéen nekk foofu ca Thiès Serigne Bounama Aydara xalif bu Nimzaat Serigne Mouhamed Lamine Ngom ca Paal Cheikh Ahmed Tidiane Ba bu ci Medina Gounass Serigne Youssoufa Mbaye bu xalif maam Cheikh Mbaye ca Louga Serigne Mansour Cissé ca Pire ak Serigne maam Abdou Dramé ca Ndande seriñ Abdou Cissé xalif bu Jamal Thierno Madani taal xalif bu Thierno Mountaga Tall njabootu Cheikh Moussa Camara Cheikh Moussa Cissé Ndiambe borom daaru ca Passy Thierno Abdourahmane Bari di xalif général bu Bogol Waliou Kamin dëkk ca Bogol nuyu nañ ambassadeur di Thierno Amdou Euh, wan nekk ca Italie toogal fa Thierno Abdourahmane Bari waaliyu kaamin ba sëriñ Abo Mbacke xalifa sëriñ Fallou Mbacke yal na yàlla dëgëral euh, taxawaayam may ko fan bu gudd guur gëram sëriñ Fallou Mbacke docteur docteur ci Zahir ak ci baatin jëwriñ Moustapha Sène nañu teg nuyoo bi ci loxom sama papa alaaji Thierno Sama Sa Morabi ña ngi koy ñaanal fan bu gudd guur gëram sëriñ Samba Ndiaye nekk imam ratib foofu ca Ziguinchor président des enseignants arabes ca Ziguinchor di Waliou Kamil nuyu nañ ko imam Fansu Bodian nekk ca Bodiana xalif général de la communauté Joola jot naa ko démb ñaanal nañu kontaan trop mu ñuy ñaanal yéen ñëpp mu leen di ñaanal ñu koy ñaanal moom tamit yàlla bàyyi ko fi tamit yàgg fi lool Cerno Bokar Alpha ca war a fonde sama papa la Cerno Mamadou euh, Adama Gaye nekk ca ñànk idi sama bàyyi bopp di Alaaji Mamadou Gaye nekk Bousso Cissé nekk ci HLM Angle Mousse kooñu ñoom Yaxara Ndiaye nuyu nañ tamit ki nga xam ne mooy Serigne a Sugu Waadaan mi nga xam ne moo seexal papay awakara de Cheikh Adama Niang yal na yàlla dëgëral taxawaayam Alaaji Seydou Sow sopp sëñ Fall sëñ Fallu dëkk ca Passy Serigne Abdou Karim Mbacké borom palais ba ca Ndindi ko Modou Fleur moo muy jottali nuyu bi cardinal Théodore Adrien Monseigneur Benjamin Ndiaye abbé Jean abbé Roger ñoom Tata Rose ñoom ñëpp nag démb naa seen ñaan liñ fa ñaan yëpp ci nawel gi ci barke yoon ci yàlla Yeesu Christa borom xel mu sell mi yàlla ko yàlla nangu Serigne Cheikh Tidiane Diaw nuyu nañ ko maître Fatima Fall sama yaay la maa ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram jot nañu euh, euh, euh, kàddoom soulagé nañu ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram Serigne Mansour Sarr chef religieux ci Budi nga xam ne Budi ñu ngi préparé gàmmu international bi nga xam ne mooy Budi ren nag groupe Kouthia Show la sëñ bi fas yéene dalal berndeel moo ma ko wax ci noppam te incha allah bu soobee yàlla dinañ fa teew ànd ak suñu yaay Adja Kinesi bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si almaxtum bi ñuy jooy ba tey nopp xamaguñu yal yàlla leeral li nga xam ne mooy bàmmeelam sëriñ ab sëriñ Babacar Abdoul Aziz si sama xarit la alaaji tafsir Sakho wëlëre sama papa eh, sëriñ Mbay si Mansour imam ratib Aliou Maska bu Banjul suñu papa la ñu ngi koy ñaanal ak sama yaay ajaratu Daara Cissé alaaji Ibrahima Mbay la sama papa la alaaji Aale Mbay bëgg mbaxal ma ngi ca fas Euh, ba mu yëgee mbir ma si yónnee nañu ay ñaan ñu ngi koy delloo ñaan boobu sëriñ Gora Seye serviteur l'islam moom tamit ñu ngi koy ñaanal Pape Amad Ndiaye Bilal sa jumaa ngi koy ñaanal ndax moom ñaanal nañu Chérif Moustapha Touré bu sëriñ Fallou Touré alaaji Basiru Ndaw Daaru Salaam alaaji Basiru Touré ci Daaru Rilwan alaaji Xeyri Touré ci Medina Salaam njabootu sëñ Fallou Touré bi yëpp ñoom ñëpp nag ñoo ñu doon ñaanal pour tolof tolof ñu nekkoon démb ñu génn moo tax ñu ngi leen di gërëm di leen sant rawatina alaaji Ahmadou Touré mooy xilifam alaaji Habibou Touré nekk ca montagne ba ca Arafat ñu ngi koy ziar ak ab sëriñ Abdoulatif Dieng xalif bu maam Issa Dieng imam Kaaso Gassama ca Parcelles Assainies euh, nekk ca dëkk ba nga xam ne mooy Kanjolon ma ngay ba bésu maamu boobu nga xam ne euh, di Alaaji Karang baa Gassama nekk ca Kanjolon ca Casamance ziar nañ ko moom tamit yónnee nañu ay ñaan ba yàlla génn ci lëndëm lëndëm googu euh, ñuy gërëm tamit góor gi Ablaye Ñang jànkatu xasaayit ak Alaaji Cerno Baaba Nuuru li nekk ca daare xale bi ñuy gërëm tamit sama xarit sama wëlëre Serigne Cissé Touré ibnu Serigne Hadi Touré nekk ca Fass Touré ñu ngi koy ziar di am mbégte contentement sama papa encore di ko gërëmaat góor gi Samba Ndiaye imam sa Ziguinchor représentant des général des Tidiane ñu ngi koy nuyu Serigne Bara Cissé sa Jaxaw gërëm tamit bu baax Serigne Saliou Mbaye Jurul Mbaye nekk nag foofu ca bitim réew borom def gis président maa njëriñu réew mi Serigne Mbacke Jong bi nga xam ne démb nelawul nga xam ne mooy jëwriñ daayira euh, siratal mustaqim moom tamit ci guddi gi yëpp jóg na def ay ñaan ba yàlla delluwaat ci leer bi nga xam ne moom la ñu nekkoon te génn ci lëndëm googu mboolem kilifa diine boo xam ne démb yëg nga tolof-tolof yi nekkoon ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla bàyyi leen fi te yàggal leen fi ñi nga xam ne ñoo dëddu àdduna yàlla na yàlla yokku leer leeral seen bàmmeel waaye kilifa diine yii daal gëm naa ne ñoom ay nitu baatin ndax lépp loo xam ne caabi la te ñu tëj ko te caabi réeñ mën nañ ko ibbi te duñu gis caabi ñii ay nitu yàlla carrément nañ ay waaliw kaamin yàlla leen fi yàlla yàggal bàyyi leen fi bàyyi seen njaboot yàlla sàmm leen sàmm njaboot képp ku dégg sa tur xamal ne ñaan bi egsi na ci yow boo déggul sa tur tamit yéene bi yëpp dajale na kilifa diini nekk ci réew mi yàlla na yàlla sàmm mbokk <laughs> ah maamu papa Cheikh Diallo boobu nga xam ne mooy surululu Diallo moom ci boppam ma ngay continuer di def consultation yi tey nag ki ñu njëkk dalal mooy sa Seck soxla na réew mi te dégg na sëriñ bi nga xam ne mooy fal président yi ci Afrique ak ci àdduna bi ndax bopp yi ngeen gis bopp président yi la am na bopp président bu Côte d'Ivoire bopp président bu nekkoon France ak bopp président bu Ghana ak président bi nga xam ne ñu nekk ci réew yi kenn ku nekk jaar nga fa mu ñaanal la nga falu léegi nag mu nga ca biir Sénégal borom xam-xam la moo doon ñaanal président yu mag kii nag moo doon xale bi tàng na jër waaye ku ñëw dana la wax ndax danga dem war a doo dem ñu seeti consultation religieuse mystique bi nga xam ne moom la karamba rugu rugu rugu di defal gaay <laughs> na soya ma faye na ma we zayo na na kaya moko faye kaya misike Nadugu soya makafo mamaye kaya se ayo eh, mo kaya. Ndazayo mafo yo mae na. No yo mumba zaye do mumba. Na jaho mafakaye osi. Na. No mumba zaye na. Ya wo kuma akafia. Shamo. ya yoko ya mafaya kai amma maka kace kai lamu yo taxawal day fenn taxawal ni <laughs> mën na taxawee nii mu ngi taxaw foofu su nga dugalu sa tàngal dugal dugalu ci bopp jine dafa la ko matu mu ngi wax loolu day fenn moom soora doola moom waa fuuta la waaw kay bisimilahi rahmaani rahim auzu billahi mina seytaani rajim yal ci lépp mi ngi dugg fii mi ngi wax seytaane di nga la gisi seytaane fii yàlla moo ne booy dem ci bërëb del tàggoo ba pare moo jugu wax lu loolu fii loolu amul fii danga nga wax sa soxla mu faju ko yow nga jugu nga dem waxu bu bëri bi amul sey fii amul seytaane seytaane dafa ragal su ko gis mu ngi daw waxal sa soxla nga jugu nga dem waaw man dama dégg ñu ne gars yi yaa leen di ñaanal ma dégg sama benn waaye na ma idi ma ne ko naam mu ne ma fi Macky di ñaanloo boo fa demee tamit mun ngaa ñaanlu benn li ma tax a jóg mooy nekk président ñaar bu fekkee ne moom daf maa sëf ba may wax ay njombe ka di dil ma ko hmm. ndax man dama seetlu ne saa yi ma waxee rek ñu wax na hmm. te saa yi ma waxee sama kàddu day jiwoon loo hmm. léegi nag moo tax ma noppi fan yëpp kenn déggatuma ma ne nag comme que moom daf fi ñëwoon bàyyi ma ñu ut ay ñaan <laughs> non ñaamu kayamo fo may kay sekilu kiyo ma fay ka mana idrissa wa mana président o yo fo ma kaye si na <laughs> kiyo ma faya ma kaye se aya momo moma 수영 나만 뭐 봐야 가야 뭐 뭐만 사야 뭐 봐. 나야 뭐 보고요. 오케이. 마 눈요. 하고 여기 사야 먹고. 나야 뭐 보고야 가야 마 사야 노. 뭐뭐뭐 가야 게노 소야 마 뭐. 뭐 아야 노 거. gis nga mu ngi lay joku bi di nga ma déglu bu baax lu mu lu wax fii yow da nga wax loolu su fekkee yow bugg na nekk président nga waka li ma waka ni est-ce que dégg na naa bulu ju naa bulu ju mu nga waka waxu góoru de da nga waka waxu góoru mu dëgër naa bulu ju ah naa bulu ju naa bulu ju mulu ju mulu ju bulu ju mulu ju bulu ju mulu ju bula jiitu bula jiitu moo la mujju moo moo lay mujju Hmm. boobu leer na. loolu kay yomb na ndey pen ba. ah waaw ah, boobu leeru na. leer na mi nga wax naa buluju. naa buluju. muluju. muluju. buluju muluju. buluju muluju. bula jiitu. jiitu. moo la mujju. <laughs> moo la mu teel mu ngoon noonu acca. ndey pen da lii moom. waxala ma dégg waaw léegi bu ñu ko bantoo ñaata yoon la ñuy doon. su nga juumu bi su nga juumu bi trois fois. yow du nekk président. amulu juumu waxala mu juubu naa bulu ju ale bisimilah yi ndey pend may ma ma ñëw naa bulu ju Idrissa Seck mulu ju mënumaa wax loolu naa bulu ju Idrissa Seck mulu ju ba ne loolu nga liiru nga juum nga benn desi na ñaar waxal naa bulu ju mulu hmm. sa jabaru bii sax xam na moom nan la waxal loolu nan la ma muluju hmm? naabulu eh yow na tanawulu kenn mu wax naa naa naa ko mu da eh yow naa buluju muluju buluju damay bañ ñu juum defal nank sëñ bi may ma tuuti waxal naa buluju naa buluju hmm? muluju hmm? ku la jiitu bulu jiitu ñëw na indi jiitu si ginnaaw bi la nekk naa buluju muluju ku la jiitu moo la jootu. man maa waka ku la jiitu moo la jiitu man maa waka loolu. da nga bind ku la nga juum nga yoonu benn bii moo la dese si nga juum c'est fini pour toi. nañ ko séddoo kon defal nànk nee naa topp ci naa mhm. mhm. defal na waaw dama naa ku la juut ku la ku la jiitu ku la jiitu moo la muuju moo la moo la ju man maa la waka muuju man maa la waxu muuju waxul loolu la wax nga waka ma maa la waka muuju man wax ku la jiitu moo la mujju ku la jiitu moo la mujju voilà naa buluju muluju muluju ku la jiitu moo la mujju naa buluju kuluju muluju ku la jiitu moo la mujju voilà naa buluju muluju mu ngi ko wax ku la jiitu moo muuj naa mu la ju mu la ju la ju yow sa affaire bi la jiitu moo la ah, ah, jiitu naa mu la ju ah. ku la juutu moo jiitu eh, eh, naa mu la ju eh. mu la ju mu la ju jiitu alhamdulillah baay Mamour Insa yaa ñu yoon wi baay Mamour Insa moom xamal nañoo kan mooy Barahama ñas kumba abdoo baax baay doon tariixa jànge baay Mamour Insa di la bëggee baay Mamour Insa faydu baa ngi lay ndamoo baay Mamour Insa diine jaa ngi lay ndamoo baay Mamour Insa kon wayle leen ma baay Mamour Insa doomu yaayu waayu Lamine Diop xaritu Cheikh Alay Alay wëy alhamdulillah Baye Mamour Insa mooy boole tabeeg mbaax Baye Mamour Insa moo boole yar ak bay Mamour Insa allah allah mu doon say gàddu macha allah jërëjëf mbokk yi ñu ngi am mbégte ak contentement bu mag di gërëm bu baax euh, waa Sénégal yëpp nag euh, ci seen témoignage depuis démb fu nekk la nit di wootee pour xool nag euh, ci jàmm jooju waaye nag ñuy am mbégte contentement ci ñi nga xam ne ñoom jeune la muy Elzo di jeune boo xam ne mu ngi dëkk ci banlieue bi bi mu yëgee ne dañu posé suñu candidature pour dem ci élection yi premier réflexe am mooy ki may seeti jeune la kon man ambition la am moom tamit mu nekk jeune am ambition taxawal comme art vision di yëngu ci li nga xam ne mooy sérigraphique audiovisuel impression numérique impression office ak objet publicitaire ak sérigraphie lépp nag moom mu nekk jeune leader pour taxawal géejawaay taxawal banlieue ci boppam Euh, vraiment euh, euh, mbégte liggéey ñun pour mu ñoo jàppale ci suñu visibilité bi mu ñu ko waxee ñun tamit ñu nekk ñun ku ñu delloo njukkal ñu delloo njukkal ñu ne ñun tamit dinañ ko jàppale ci visibilité ci li muy liggéey parce que xale la dafa ne gis na ni ñun am na lu ñu bëgg ambition la danañ ci jàppale ñun tamit ñu daal di koy jàppale ci li nga xam ne moom lay liggéey moo tax tey mu daal di ñëw ànd ak hôtesse yi yaan yi nga xam ne ñoom ñëpp nag dañoo taxaw tey pour gunge ki nga xam ne mooy seen patron de Elzo Elzo ñu ngi di la dalal ci plateau Kouthia Show. merci beaucoup Kouthia merci beaucoup notre candidat. Mhm. je parce que vraiment. kontante euh, la tey ñu ñëw fii nii ci plateau Kouthia Show. Mhm. Euh, ñëw apporter suñu contribution. Mhm. parce que vraiment yow jeune nga. et puis nga am vision. comme ñun nit ñu tudd muy comme Art Vision. voilà nga am vision. poser sa candidature ci élection présidentielle yi donc pourquoi pas comme aar ñëw accompagner la donc ñëw indi la ay loo yoo xamante ni moo nekk en guise de participation ci sa campagne électorale voilà jërëjëf loolu nag euh, ñu koy rafetlu parce que boo xoolee personnel am ñi mu àndal li ci ëpp sax dañoo nekk ay jeunes yoo xam ne barème d'âge bi c'est entre 20 ba 25 ans maximum 20 30 ans ñu am vision gëm-gëm ne dañ koy jàppale ci liggéey bi nga xam ne moom la bëgg def capital immatériel mooy koo xam ne dafa déparé ci dara di fexe pour yóggal boppam pour jàppale ca banque muy jëm ci audiovisuel clip réalisation clip sport lépp la Elzo taxawal pour jàppale xale banlieue yi nga xam ne dañu doon am problème pour defar clip di ñëw ba ci biir ville bi di am ay problème pour ñu mu a mun leen taxaw leen yem leen ci banlieue bi lépp loolu leen uti en ville mu ngeen ko am ci biir banlieue bi. objectif boobu nga xam ne moom la ñu jàppale xoolal tey pancarte yi. daf ñu noonu naroon dikkee lu cher mu indi ñu ay pancarte pour ñun suñu ay meeting suñu ay proximité dafa lañu ci nombre boo xam ne mënuñu ko compter lépp rek pour indi visibilité wu Kouthia ñu ne déet na mu indi ñu ay flyers yoo xam ne dañ ko fas yéene distribuer si suñu ay militants yi nga xam ne dañu koy jot xam ne ñun li ñuy taxaw nii di wax ay caaxaan ñu ne déet na waaye mu indi ñu ay t-shirt madame yoo xam ne visibilité bi en couleur qualité lépp mu def ko ci loo xam ne laaj ci dara daf ko def gratuitement di qualité bu supérieure bu am solo boo xam ne euh, vraiment lii moom euh, dafa neex ci yaram sax wax waxuma sax wax la sax kanamu élage bu bi la mais dafa neex ci yaram loolu yëpp nag li ko tax a jóg c'est juste pour wane ne jeunesse tey bi bu ñu leen accompagner dinañu mën a développer li nga xam ne loolu la fi tubaab parce que liggéey bi ay tubaab ñoo ko doon def am na ñoo xam ne ñu ngi commandé lii ci ay yu nekk bitim réew te ay jeunes mën ko ce message jëmale ci candidat yi nga xam ne dañuy utiliser yi dem di ko commandé ci ay ñu mag ñu am doole te jeunes nekk fa ku ci mel Malick Gakou ma nga ca banlieue ba am na candidat yoo xam ne ña nga ca banlieue ba ban message ngay lancé nga xam ne ñooy candidat yi ak lu dul kenn élection da ngay nga xam ne moom mooy audiovisuel ak vision art waaw avant tout d'abord ma présenté rek équipe bi ma àndal bon ñoom ay commercial lañ voilà ñoom ñooy dem wuti ji xaalis ñooy décroché ji marché yi ñoo indi ko biir comme art donc euh, moom mi ngi tudd Oumy bi Ngone Ngone du moins. Ngone voilà Ngone Oumy. Oumy Oumy. Euh, Oumy aussi. Oumy au carré <laughs> ñaari Oumy. Grace moom congolaise la congolaise Grace. voilà def nga intégration africaine. Mhm. yow maanaam sa sa biir emploi sax am na africaine. voilà voilà koo xam ne ci bi. voilà vraiment satisfait ci emploi de donc xam naa ma bàyyi leen ñoom aussi ñu présenter un peu. Euh, li nga xamante ni moom la comme art def yëpp. Euh, bonjour. Oui, euh, nous sommes euh, une agence de communication. Donc, euh, nous faisons tout ce qui est impression numérique, offset, les flyers. Donc, nous vous remercions encore de nous avoir donné le marché pour une bonne visibilité pour vos élections. Nous sommes, nous sommes, avec vous et nous allons booster la publicité pour que la, population sénégalaise, le peuple sénégalais vous soutienne dans votre candidature. pour ñu assurer leen seen visibilité. d' accord merci yow nag ñu remercier tamit sa personne. lii ma am sañ-sañ bii nii. su ma ko amee c' est parce que damay remercier sama patron. parce que fii tamit na nga amee buntu commercial noonu laa amee buntu commercial. lii ma def nii dama ko def parce que xam naa ne euh, am naa sañ-sañ bi. ndax dama dem ak samay moyen personnel boo xam ne. Mhm. amul kenn ku ma jàppale ci lii. donc su ma gisee loo xam ne. dafa am ay sénégalais yu def ko pour jàppale ma ci loolu. Mhm. dañ leen di delloo tamit jàppale mooy visiter. Mhm. maa ngi remercier sama patron di ci tamit euh, opportunité bi ma may pour ma dalal leen ci moment bi ngeen am visibilité pour en contre échange de marchandises waaw oh, TFM moom vraiment télé la boo xamante ni waaw télé askan wi la voilà ñun tamit ñu ngi leen di remercier ci opportunité bi ñu may pour ñu mën a assurer fii ñun tamit suñu visibilité ñu xamal leen ñii joxuñu leen dara amul benn dërëm boo xam ne Kouthia Show yëkkati na ko jox leen ko dañ ko def gratuitement te mënuñu leen wax combien de t-shirt nañu defar mun nañu demoon na plus de 2000 t-shirt yoo xam ne benn bu nekk rek boo ko doon ut tey di nga def presque 1000 francs wala 1500 wala 2000 francs ci qualité euh, kii ñu def ko gratuitement kon vraiment on vous parce que vous avez déployé tous les moyens mm. pour mun ñoo jàppale ci suñu visite merci comme jàmbaare waa Combat Vision jàmbaar la ma bu mag mbokk yi ñuy gërëm bu baax waa comme Art Vision comme ni ñu leen ko waxee rek ay jeunes yoo xam ne dañoo taxaw nag pour jàppale képp koo xam ne nag yaa ngi ci banlieue bi ngay artiste di def clip dinañ taxaw a euh, ñi nga xam ne dañuy dañ ciy ñu leen di ñaanal tamit ñoom seen vision dépassé li nga xam ne mooy frontière Sénégal ba bëtt Afrique génn ca Europe mën nañ ko ndax yàlla mooy maye ana Serigne Mbacke Jongo jëwriñ daayira axlu siraatal mustaqim sama soppe la maa ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram gërëm naa ko sant naa ko yàlla ko yàlla defal jàmm ak mbooleem taalibe boo xam ne yaa ngi ci daayira axlu siraatal mustaqim yàlla may leen fan bu gudd ak wér gu yaram waaye di am mbégte contentement bu mag ci Serigne Malick Cissé doom ci Serigne Bassirou Cissé sët ci Serigne Mor Mbaye Cissé nekk ca Njaareem quartier Firdaws suy kër gu mag ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak jàmm ak xéwal waaye tamit di am mbégte contentement ci képp koo xam ne yaa nga ca HLM ndax dynamique convergence en lien pour l'implication citoyenne incha allah cérémonie de distribution des prix samedi lay am le 29 décembre 2018 ca HLM 5 à côté de la poste bi marraine bi nag mooy madame Guèye Soxna Ndoye thème bi nekk femme et euh, euh, euh, femme et éducation Yaxara Ndiaye nekk artiste moom ci boppam boppam bokk na ci ñi nga xam ne nag danañu darajal bés bi ndax bés boobu nag il faut ngeen xam ne nag du doon bés bu ndaw directrice école HLM 4D di madame Guèye Soxna Ndoye moom mooy doon marraine bi animation ba nag dana am accueil des invités officiels national bu réew mi dañ ko fa def allocation de bienvenue du de Déclic HLM di ki nga xam ne nag euh, monsieur Touré la yàlla ko jàmm maire HLM dana ñëw animation remise de cadeau marraine bi ak njabootam danañ fa teew remise des prix animation cocktail de euh, clôture ak cérémonie dana fa am koo xam ne nag euh, da nga bëgg añ mun nga fa añ ndax xam naa ne ay euh, ndawal yu bëri dina fa bëri ndax nag ñoo ngi koy préparé ci teewaayu ki nga xam ne mooy Yaxara Njaay nekk artiste comédienne bokk ci mouvement déclic boobu yal na yàlla defal jàmm mbokk yi xam nga ku ñu seeti ci boppam il faut ñu seeti ko parce que Karim Wade jaar na Macky Sall jaar na Ablaye Wade jaar na ki nga xam ne mooy Idrissa Seck jaar na waaye Madické Niang jaaragul ki nga xam ne moom mooy <laughs> sumburu luguru papay maamu Pape Cheikh ba nekk ca Tambacounda ma <laughs> faya beyo na seya na seyo ma fe na seyo ma yako na masaya fo mo kaya kese kaya na mo mo mo kaya <laughs> naza bra yako yo fo makaya yi aha yo naza yo yamo koyo foma aya kese sant ba naya jàllo saga sumru a waa dugalu dugalu kacanu bi fituti voilà jàllo no soyo kaya momo ka ka naka Adja Khoudia taxawal ni ni sen du woro taxawal no soya ma ma ne nga wax sa sogolo lan moo lay indi. xanaa bëgg nekk président de la république. Hmm. kii bëgg nekk première dame. Hmm. jëlee si Macky Sall daa dee toog. Hmm. kii jëlee si Marème Faye daa dee toog. Sénégal naat. ma dikkee ñaar maa fi àndaloon Ablaye Wade bi ñuy dem élection 2012 yaa ñu ñaanaloon sa baay. wax nga la loolu ma ne xamee na yow boobu kale bu tuuti la. ma ne gis na xamee na boobu yow kale la waaw boobu kale kaaral. sa baay fii nii da ngeen nuroo benn ngeen ba ci sikkim bi. mu nga juru doomu su nuyuwul bàyyi kala nuru mu ngi golo mi ngi nduru baay bi man mi ngi nduru suma baay waaw na koyo ko nu za ayo mo ko bu ma waka jiriji ah? danga waka jiriji jiriji waxuma la eh, eh dogu danga déglu lu ma wax waxuma kiriji danga waka jiriji jiriji voilà jiriji ma ngi wax loolu voilà waka jiriji no koyo mi akaya ba amma momo na maɗike aran fo ya ma sayamo fo wa mga waka maɗike ña waya koyo mo fo mo ayamo a wakana nene aja huja maɗike waɗo comana makisala waɗi one ana mare fay oyo mugo waka defon dankara ko migi lunga yakamti lalla ma dugu nuyu dugoru fi tego solo ko migi waka loolu man bugulu nit bu ëppalu di nga ubbi sa botu bi nga diglu sa nopp bi. waaw bot déglu nopp. mu ngi def ko kële tamit mi ngi ubbi botu mi ngi déglu nopp. voilà voilà mi ngi waka naa bulu ju. naa bulu ju. ah ah naa waay waay mulu ju. mulu ju bulu ma ne naa bulu ju mulu ju bulu ju. Eh, eh. yow mi ngi gaaw mokkalu boobu de. Hmm? baaku na mi ngi jiitu. Ah? minga wakala ka doko sike kan jiitu sukona ka jiitu nga moo ka mujju moo ka mujju ah, eh, yow bi amuno wér segi de mi ngi waka loolu waka loolu fii dinañu mhm. eh, amul loolu amul nga waka keneen nga eh. laa la waka nga waka Touba nga waka naa bula jo naa mhm. bula bilay ajaa xujja mu la jo mi nga wakka billahi maanaam mu nga binde fii billahi mi nga wakka loolu mi nga wakka naa buluju muluju buluju wakka loolu naa buluju mhm. déglu man si nga juumul trois fois yow danga nga ñàkk du nekk président voilà naa ma kaa fee naa buluju mhm. muluju mhm. na ah, foofu la a ah, naa buluju muluju muluju buluju bu ka jiitu bu ka moo la mujju bilaay moo la mujju waka naa la bàyyi nga waka bilaay fi eh, yow tamit nga waka bilaay waka jogale nga waka nga dem nga waka bilaay nga ma ko kaya kaya muso la nga koolu man wakalu nga kool loo ma kool ada ku la jiitu ku la jiitu moo la mujju moo noonu la. noonu la mu ngi wax naa bu la joo. mu la joo. mu jiitu moo mu la joo mu la joo. ma ki jiitu ma ki ma naa bu la joo. mu Macky ma ma dikk jiitu Macky mujj. yow mi nga wax loolu ma dikk mi ngi jiitu Macky mi ngi mujj yow yaa ko wax loolu c'est fini pour toi. jiitu moo la mujj ku la jiitu moo la mujj naa buluju. buluju ku la jiitu moo la mujj walay muluju ni buluju ku la jiitu moo la mujj.

nanadu wenye moya filola ye dunia awulula du adubaila te ak contentement bu mag di gërëm képp ko xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show gërëm nag ñi nga xam ne ñooy kilifa diine nekk ci réew mi sant waaye nag journée culturelle euh, yi nga xam ne nag ñoo fi amoon yëpp ñu ngi leen gërëm waaye alaaji Samba Gakou DG bu Tabafor entreprise nekk foofu ca Ziguinchor ak suñu yaay euh, madame Jimmy Gakou ca Ziguinchor nuyu nañ ko Moustapha Gueye xam sa diine ak Serigne Mam Mor mbake mu Serigne Habibou mbake ak Serigne xam euh, Serigne Mandoumbe Xabane Mbacke ñu ngi leen di nuyu nag di nit ku baax ku yàlla defal teranga ci baatin ak ci zaar ñu koy gërëm waaye tamit Serigne Bassirou Mbacke transitaire Farba Ndiaye transitaire nuyu nañ leen di leen gërëm Alaaji Mbodj ne euh, chéri Oumy Ndiaye père de maman Euh, nekk foofu nag euh, ci APEX ñu ngi koy nuyu Ibrahima Mbodj ak Bas Mbodj suñuy doom lañu jalañu Kaolack nañ dëkk ñu ngi koy nuyu Bachir Trosé Tanjigora di marabu sama xarit yàlla na ko yàlla defal jàmm di benn booy boo xam ne wax dëgg yàlla ku euh, am yar ak teggin la du yaru di jàng xam-xam te bés bu moo ko lay xam naa ne àddina yëg ko ndax ku lewet ci àddina la ñu koy ñaanal fan bu gën a wér gu yaram yàlla defal ko jàmm ziare Medina Salaam bu Serigne Fallou Touré le 13 janvier Serigne Mansour Ndiaye bu sànc ba Aliou Ndiaye mu ngi cey woote ci ndigalu alaaji Ahmadou Touré ak njabatu Daaru Rilwaan yëpp xalif ba alaaji Basirou Touré ak alaaji Habibou Touré ca montagne ca Arafat ñu koy nuyu di ziar tamit ci alaaji Xeyri Touré Medina Salaam ñoom ni ñuy fekk ci sama xarit Moustapha Touré moo ma jox communiqué bi fii di Sissoko chérie Christine euh, euh, yo Kouthia Show is bringing you vraiment uh, ay happiness to happiness everybody every night di ko nuyu bu baax di wax dédicace à Oulay Kassé yaayu xale yi ak Saliba magu xale yi borom soos yu neex yi ñu ngi koy nuyu ak ay Aïssatou Sow depuis Bagdad ñoom ñu ngi am kenn dal jàmm di leen ko nuyu waaye nag suñu xarit yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci staff ba foofu ca comme Art Vision ñoom Moussa Sare ah ñoom ngoone Ñaa ñoom Daaru Gueye Moussa Camara Oumy Thiam Oumy Fall ak Pape Gueye ñoom Mamadou Sow ak Grâce la congolaise ñoom ñëpp ñu leen di nuyu ak joyeux anniversaire à Ablaye Diop série Ndey Kumba Kebe nekk ci Sicap Foire léegi gis nga booy bi ñëw nii ah booy bu am inspiration la booy bi moo nekk ci banlieue bi di ko yëngal xaadim temps dafa xam temps jàng temps te montram du tardé saa yu ko laajee heure heure bi mu lay jox mooy temps universel te booy bi saa yu créé way wara mu génne benn affaire avant mu koy génne gars yi sàcc ko génne ko léegi nag xaadim nee na xaadim doon dootul mayeti dara parce que moom saa yu génnee rek balaa mu koy def single gars yi daw jël ko changé ko léegi nag moom nag fii la ñëw xaadim booy bii dafa ay ba para taqe temps universel la ñëw kii mooy xaadim temps monsieur xaadim temps my boy nice xaadim temps xaadim temps xaadim temps naka temps bi yow sa heure toujours day nekk ci temps bi te xam lu ma jaaxal heure bi nga yor moom la adduna yëpp yor même heure bi yow doo tardé seconde lépp ci temps nga koy teg mais xaadim coow li dafa bëri bagage yi dafa bëri génn na dugg na kuy toxu da ngay dugal bagage kuy génn da ngay kuy kuy kuy kuy toxu da ngay génn bagage ay bagage dugaat yeneen bagage génn yëngal nga àdduna ci morceau bi nu mu tudd dikkale dikkale xam nga dikkale baaxul. xam nga dafa ñoo xam ne dañuy jékki-jékki doo leen def dara ñu dikkale la. mais lu tax loolu man loolu dama jaaxal quoi pourquoi loolu war a nga wax nit ba pare mu dikkale la. mais ku ko sàcc nag fu mu ne nii daf na ko clip ba pare foo ngeen xam lu leer booy bi saa yu ñu jël ay woyam di ko sàcc léegi nag loolu moo fi jeex booy xolal ku la sàcc te wooy ñëwal fii maa ko rek dikkale c'est pas dikkale dikkale dikkale c'est pas dikkale baaxul waay dikkale dikkale dikkale baaxul booy dikkale c'est pas bon mucc du ci potu dikkale c'est pas bon dikkoo ju doy waar day sensé xanaa kii perli nooy na waaw waaw gis toog na de. non non lii moom macha allah <laughs> vraiment bagage yi dugg na génn na vraiment kontaan nañu si xaalis yàlla yàlla waay tons amiin waay ñu baax tan bombe. ay jeunes yoo xam ne inspiration macha allah. Euh, clip bi génn na. waaw clip bi génn waaw euh, kon nag waa Géejawaay waxuma sax Géejawaay bu ko yemalee foofu day mel ne aar fa la yem. Mhm. adduna diaspora ñoo lay seetaan. waaw xaadim yàlla def na loo génn rek macha allah yàlla def ci teg ci loxo. mais bii moom macha allah. bagage yi dugg na gis nga bagage bi mu léegi léegi nag fu mu ñuy duggutul mu ngi ci diggante léegi bagage daa ngi ci diggante <laughs> waaw génn <laughs> waaw ku caa tamit maa ngi nuyu Sénégalais yëpp waaw du nuyu àdduna du nuyu ñëpp ndeysaan man nag euh, mënumaa lim kenn bàyyi kenn maa ngi nuyu Sénégal gi yëpp ku lim da ngay juum parce que nag gis naa ni nga def mi ngi jàppale seen talent ya ah. barke Serigne Bamba mi ngi jàppale seen talent yi te daa xew Kouthia yaa xew ci jamono yaay feeling paaj yaa defar jamono yëngal jamono moom la ñu xamee Kouthia boo tëddee ne boo réef kaay koo seme koo ba mu neex la doo fay dara lekkal naanal ey yow Kouthia bu la neexee ngay soo yow bu la neexee ngay soo yow bu ko neexee fay soo yow bu la neexee <laughs> bu ko neexee rawa soo ay bu ko damay boy fonkal ni jaay doon na li la war ci jigéen sëriñ bay seeni kinde te mimi jee doomu yaayu naa ni jiw borom mari xam naa li war waaye safuma xarit naa wax ko sa jëkkër doon na li ma war waaye lu tax defoo ko dafa loolu yow lu la dal kii dafa daas kii kay dafa daas xusi taw bi dox sa mbégte ak contentement bu baax yi di gërëmaat une fois encore Elzo et tout le label ñoom tamit waa comme Art Vision ñaanal nag seen vision dépassé li nga xam ne mooy Sénégal ak Afrique ak fii ci Sénégal yëpp ba rombul fi nga xam ne nag mooy àdduna bi yàlla mën na ko yàlla yàlla teg loxo ci groupe boobu nga xam ne mooy groupe comme Art Vision di ay jeunes yoo xam ne dañu ànd ak Pastef ñoom Moussa Saré ñoom Ngone ñaa ñoom Daaru Gueye Moussa Camara Oumy Thiam Oumy Fall Pape moom Mamadou Sow Euh, euh, grace la congolaise ñoom ñëpp nag ñu tudd ak ñu tuddul euh, partenaire artistique ak partenaire privilège yi nga xam ne am nañu ko gën ko renforcer parce que label la boo xam ne mu ngi ci banlieue bi di jàppale xale yi di dugal ci li nga xam ne moom mooy entrepreneuriat ak li nga xam ne moom mooy arrêt chômage bi di jël ay jigéen di leen jàppale ñu liggéey di ko jàppale Elzo Elzo way Elzo jaajëf waay suñu xarit la vraiment ñu ngi wax nag euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm di wax kilifa diine yi nañ ko ñaanal ndax xale la boo xam ne li ko tax a jóg mooy bañ xeex ataaya mbedd xeex ataaya mbedd moo ko tax a jóg maanaam bugul ay jeunes yu toog ti mën seen aar te duñu liggéey Elzo vraiment yàlla na la yàlla jàppale ci liggéey bu rafet bi nga def yow ku baax nga parce que lii yëpp mënul ci bañ a fekk moo tax yow il faut ñu jàppale la ah mooy fexe ba ñu bokk vision li li ñuy liggéey yàlla teg ci loxo dédicace à ma mère Aïda Diop et toute la famille Diop Euh, le grand-père Babacar Diop depuis euh, Rufisque et ma grande-mère maire Ami jeng de la part de Alima kànjee <laughs> Alima day wax dëgg yàlla tey de daanu gi mu daanu ci buntu télé bii waaw wow fa xastalu benn fa xastalu boo xam ne ah wax dëgg yàlla Alima tey fu mu toog nelaw xam ngeen ne nee nañ ko massa oh ndigli nee na caractère yi oh baax na ci moom parce que xam nga boo safee boo solee greffage boo xam ne day nuroog suuf suuf ci boppam moo lay xëcc <laughs> <laughs> voilà kon mbokk yi léegi nag dañuy dem di nuro tamit Samba Diouf bu Serigne Mbacke Medina chéri Astou Sidibé bàyyi Serigne Mbacke Medina ñu ngi koy nuyu Maam Jaara Diouf doom ja nuyu nañ leen léegi suba mbokk yi incha allah ci ajuma ji bu soobee yàlla yàlla dina dogal yëpp danañu dem nag euh, waa rendez-vous mooy dañuy dem suba comme que pancart yi ñëw na t-shirt yi ñëw na fi ñuy jëm duñ ko wax mais xam naa daal suba dinañ yëngal gësëm ba yooyu ñu xam ne suba dañuy yëngal gësëm merci di gërëm tamit ci turu artistes yëpp Yaxara Ndiaye ak ñanga ndax démba ñoom ñoo teeloon euh, groupe Kouthia ca fa nga xam ne mooy ca euh, conseil constitutionnel gërëm nañ leen bu baax di euh, ñoom ñoo représenté woon tout l'ensemble parce que ñëpp mënuñu woon dem mais Yaxara ak Jaara ak Mbay ak Kara représenté nañ ñëpp nag vraiment ñu ne di ñaanal yàlla may leen fan bu gën jur gu yaram waaw vraiment léegi nag mbokk yi dañuy tëj li nga xam ne <laughs> mooy émission bi ak Abdou Mbaye tubaab jàkkaarloo ki nga xam ne mooy maamu Pape Cheikh Diallo mi nga xam ne mooy def yeewu leen ndeke ne Pape Cheikh lu mu gàtt gàtt xam-xam maamam daana petaaw <laughs> смотрела, да? Вот она. Hmm, Nakaya. Oui, Abdou Mbaye. Bala faero kaya siya. Madame Mbaye. Ah, yoko. Nasa mfumo makaya kiki. Hmm. Suma femme suma jabar la. Waxal sa soxla la nga waxal wa jabar. Na ya ko. Waxal soxla bi la la. nekkoon naa premier ministre ah. hmm. demoon pour nekk président après hmm. mu am problème hmm. maag Macky Sall après j'ai démissionné pour mun a liggéey euh, euh, sama bopp pour dem président maa nekkoon premier ministre Macky Sall bi muy soog a toog Abdou Mbaye doomu Fokke Ba Mbaye suma papa donc man euh, dama ñëw pour xool parce que dama paraît-il que Macky ñëw na fii te xaw ma ndax dafa indi suma tur au nom moo tax ma ànd ak madame sa yoonu nekkul loolu foofu da nga soxla man dama ko faju nga wax sa problème la ma rek da nga bugg a nekk président dafa bugg a nekk président waa kayo moo fokk yow ayo non yow hmm. Abdou Mbaye naa ya waaye kayo so moom sa jabaru bi madame Mbaye alaka yono wo fo ayamo koy o président wona première dame mm, na <laughs> namo koya foma saya ñamo iya ko fo ayama kayo soyo mo koma kaya kayo momomo kaya kayo momomo ba kayo <laughs> nazaya ko mo foya ayama kayo moom halpulaar la quoi waya mo foya kayo nuyu man du nuyu góoru waya mo fay teesu loxu wax nga ne du nga ñëw fii nga wax affaire de ton amulu fi danga ba dee déglu fii. waxala sa jabaru bi mu tëgg ju gémmiñ bi voilà fii amul affaire da nobaate boobu de voilà xoola fii nga xoola fii naa bulu mi ngi wax naa bulu bon naa boolojo. eh amul affaire de tubaabu de dinga nga génn sa gémmiñ bi nga wax naa buluju. naa boolojo. muluju buluju. eh bien e je je disais naa boolojo encore. léegi danga nga bëgguma déglu. si nga mënul wax bi yow du nekk président. c'est grave si nga juumul trois fois yow du nekk président est-ce boobu dafa leeru. d'accord wax la naa buluju. bon eh, naa boolojo. Bouloudjou. Eh, eh, Bouloudjou. Bouloudjou Mouloudjou. bon je pense que c'est Bouloudjou Mouloudjou. bu la jiitu. Eh, bu jiitu. bu la jiitu. moo la mu moo la mu mu. bu la jiitu laa wax nga wax bu la jiitu. moo la jiitu moo la moo la mujju. naa Bouloudjou. naa Bouloudjou. Mouloudjou. Euh, euh, euh, répète s'il vous plaît. <laughs> est-ce que yow bi ngay ñëw fii ak sa kele bi yéen ñaar ñoo ànd ñu ñëw fii. oui moom eh, accompagné pusalu foofu yow. su jigéen bi moo tax mënu la wax wax bu normal naa buluju. na buluju. muluju. muluju. muluju buluju. muluju buluju. voilà bu la jiitu. bu la jiitu moo la mujju. moo la mujju mu nga wax foofu si nga juumutu doon président acca waxal ma dégg na buluju. Mhm. donc si effectivement na buluju. Mhm. muluju mm-hmm. bu la jiitu moo c'est ça non. wakar buluju. voilà muluju bu la jiitu moo la mujju. muluju buluju. mu mu muluju muluju muluju mulu mulu muluju muluju mula buluju. jugal jugal. jugal. jogal laa wax nga jugu takaw nga wax foofu su nga juum du nekk président a nga dem waxal naa bulu ju mulu ju naa bulu ju naa bulu ju naa bulu ju mulu du wax ak jiitu moo la du wax loolu naa bulu naa buluju. muluju muluju. buluju muluju jiitu. voilà ni nga juutu foofu baax na fële côté ba de ni nga jiitu fële. naa muluju voilà. muluju monsieur Diop naa muluju. waaw buluju. tout simplement buluju. voilà il faut il faut buluju bi mi ngi ñëw. muluju muluju muluju mu ngi ñëw si si sa buluju. moo la ju buluju juutu yow. moo la juutu naa muluju. Muluju. Muluju Muluju. mu ngi juutu man. yow ñu ngi yàkkal sa bopp. Muluju naa Muluju mi ngi juutu mi ngi juutu yow mi ngi juutu yow tamit.